waaw sibilaay mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim waaw sëriñ bi man la Cheikh Sokhna hmm, maa ngi lay waxaat ne la mbiru feebar bi fi mu toll nii feebar bi xam nga yaa ngi dégg ñuy wax ndax am na ay variant ay mutant feebar bi feebaru Covid 19 bi benn rek la mel ni feebar bi la maanaam doomu jàngoro bi moo moo moo am yeneen melokaan moo jur yeneen yim jur nag ñoo gën a soxor seen ndey. maanaam daal boo ko seetloo nan la mais benn doomu jàngoro bi la fi mu toll ni nag li si gën a ëpp li si gën a doy mooy doomu jàngoro yu bees yi di génn ñu koy wax variant delta ak alpha ñoo ëpp li ñuy wàlle ñoo ëpp li ñuy joxe ay kaay yu grave maanaam ñoo xam ne ay cas yoo xam ne dañuy laaj ñu yóbbu leen sauvetage ba pare xale yi mag ñi waxambaane yi maanaam ñi am seen at am fukki at ak juróom ba dem ñeent fukki at ak juróom moo ëpp téeméer boo jël bu feebar juróom fukki wala juróom benn fukki yi seen at amagul juróom fukki at donc te loolu boo seetloo Sénégal ni mu tëddoo mag ñi ndaw yu ñopp mag ñi ndaw yu jigéen yi yu góor yi ñopp mag ñi foofu foofu moo tax feebar yu bari nii buñ deful ndànk nag feebar boobu dina jóge ci xale yi parce que xale yi kenn vacciné wul leen donc amuñu vaccin te feebar bi du leen gaañ te bu wàll dañ ko wàll mag ñi te buñ ko wàllee mag ñi li si naral lor dina bari maara détaal yàlla ñu si yàlla musal moo tax lu ñu war a def nag woon nañ ko def fi mu toll nii boo gisee cas yu bari ni mu baree nii ñu léegi ñuy dem si juróomi téeméer ba dem si junni moo wàllaat wàllaate bi la te wàllaate bi li ko ëpp li koy joxe mooy ndaje yi nit ñi di dem maanaam ndaje yi ñuy dem bari duñ sol masque di wax ak transport beeg oto yeeg marché yeeg yëpp loolu ñu man nag li ma jàpp mooy euh, war nañ mën a góorgóorlu fi mu toll nii ba def tout mu gën a mu bañ a mu bañ a mu bañ a yokk te feebar bi ni muy génne ni mu ñëwee temps yi dafa euh, maanaam si ñi mu doon am melokaan yi mu doon am dafay yokk donc bu njëkk bu la dalee da nga naan saqat am am yaram wu tàng sa bakkan bi di fatt sa léeg-léegi sa noy bi di fatt sa tànki yi di metti léegi nag am na yeneen yu si yokk léegi sa digg ginnaaw geeg sa diggu ginnaaw beeg sa dënn beeg sa cër yépp yépp dañuy metti doom doo mën a jóg doo mën a dem fenn léeg-léeg ak biir bu daw te sax léeg-léeg mën ngaa bañ a saqat da toog ñaari fan ba ñetti fan juróom fan da nga commencé saqat te dëkk bi fi mu toll nii bari na ñu bari ñu yaakaar ne dañoo am grippe wala dañoo am siburu amuñu ko feebar bi lañ am si ma daal boo jëlee fukki nit ñoo gis ñuy dox fukki nit yoo gis ñuy dox juróom-ñeent yi am nañ feebar bu ko yëg buñ ko dañ koy yëg dem faju ji ñii duñ ko yëg parce que du leen lool donc te fukki yoo jël juróom-ñeent yi ba ñett juróom juróom-ñeent am nañ feebar donc loolu nañ mën see bu baax baax maanaam daal koo gis mu am naan laa dama am grippe wala dama am siburu wala dama am paludisme boo buñ ko mënee wax mu dem testé ñu testé bu dee daa positif ñu jox ay garab mu teel ko wax waa kër docteur yi ñu jox ay garab mu faju di takk masque di raxas loxo yi fi mu toll nii euh, euh, vaccination maanaam ñàkk yi amatul Sénégal bi am bëreetul te bi am mooy bi yi moom lañ ko war a jox ñi am ñi war a am ñaari dose deuxième dose bi donc nag comme ñàkk amut nañoo war a góor góorgóorlu gën a aar mag ñi ni ñuy aari mag ñi mooy ñu leen jox masque yu doy di leen jox saabu ku amul gel saabu ordinaire bi waxoon naa ko ba léegi mën naa faj mën naa mën naa raxasu ñu wut saabu ndox dëkk kër gu nekk ñu wut fa saabu ak ndox ñuy raxasu sol ay masque gouvernement bi moo mën jàppale nit ñi jënd masque yu bari ak saabu ak gel yu bari jox ko nit ñi ñi nga xam ne ñooy tukki ñu def tout buñ demee si gare routière yi takk ay masque di raxasu fi ñu toll te buñ duggee si oto yi ñu ubbi ubbi fenêtre yi ngelaw li di jàll wax ji ñu wax ji ñu moy ñu moytu ko def ndànk jéeg ndànk wàcc ndànk raxasuwaat seen gel wala raxasuwaat saabu bu ñu eggee si dëkk yi ñuy dem lu ñu am bu ñuy am bu ñu yóbbu sëri cë bu ñu yóbboo seen xar ba jënd xar ba pare ñu jënd ay masque ak ay saabu ak ay gel yóbbaale ko fexe daal ba ndaje yu bëri wàññee ko parce que nit ñi bu ñu demee tabaski dañuy yàgg dangaa gis ñoo xam ne dañ def ñaari semaine weer ñaari weer parce que day fay nekk ay occasion yoo xam ne sëñ daje ak seen famille yi di waxtaan loolu war nañ si gën a góorgóorlu góorgóorlu bu baax ñu li li si ëpp solo daal mooy buñ mënee fexe daal ba e, wàññi ndaje yi ñu wàññi yi bu baax a baax ñu mën ko wàññi dina baax dina baax lool te feebar bu bees bi ñuy wax variant bi daa mën a wàllay lool lool lool lool ñu fexe daal ba góorgóorlu si yooyu ñu fexe tamit ba kilifa diine yi buñ ko mënoon kilifa diine yu baax yi yu tedd yi xam ne suñ borom moo leen moo leen def noonu ñu te jàmm lañ bëgg si àddina bi buñ si mënoon def daal waxtaan bu baax yeeyaat nit ñi def si ay ay ay vidéo ay ay ay ay yeete yee nit ñi ñu gën a farlu parce que fi mu toll nii fee xeexu Covid bi du état bi du kenn askan wépp la askan wépp ñoo mën a toog waxtaan taalibe yeeg ñëpp ñëpp jàngu beeg ñëpp gën a waxtaan ñu gën a ñu gën a aar suñ bopp parce que bu ñu continuer nii euh, cas yi di yokk boo mutul waa waa waa Europe yooyu yëpp mën nañu def Sénégal euh, zone rouge mooy pays rouge mooy pays bu xonq buñ ko defee boobaa ñi xam ne dañuy liggéey di yóbbu bitim réew duñ mën a génn yi jóge bitim réew di dugg si kër gi dugg si euh, Sénégal duñ mën a génn am na dëkk yu ñu koy def fu mu toll nii te loolu baaxul si suñ koom-koom baaxul si ñi xam ne dañuy def commerce intérieur extérieur baaxul si ñoom donc loolu laa amoon lu ma lay wax sëriñ bi di la ñaanal gudd fan nga dëkk ak yar bu yaram Mbàkke barke sëñ Tuubaa